de Papa Sow vendredi 21 février au Stade Marius Ndiaye en direct sur ITV avec des artistes de renommée ngir dugg foofu nag yomb na demal ci sa Play Store wala ci Google Play nga télécharger AgriCash AgriCash votre porte-monnaie électronique pour toutes vos transactions sur mobile. La banque agricole. ñoom ñoo génne lu ni mel. ngir ngeen yónnee wala ngeen jot xaalis wala boog ngeen fay ci seen ay facture kon nag noté leen ko face to face Siteu Papa Sow vendredi 21 février au stade Marius Ndiaye en direct sur ITV ay artistes de renommée dinañ fa teew ngir dugg fa nag yomb na demal ci Apple Store wala Google Play nga télécharger Agricash boo ñëwee ca buntu ba nga wane sa portable nga dugg ci biir. Ah, mbokk yi ñu ngi taxaw ak euh, Père Cheikh. nekk manager ki nga xamante ne moom mooy Papa Sow Père maa ngi lay daloo ziar. ñu ngi gis leen tey CNG ngeen ñëw régulariser combat bi war a dox diggante Siteu ak Papa Sow. waaw waaw waaw. Euh, dañu ñëw tey pour régulariser combat bi waaw. yow ñu xam la ci manager mën nañoo wax manager général bu écurie Fass. Euh, Papa Sow daal di jógee fi nga xamante ne moom mooy Fass. lu waral teewaay bi. waaw parce que Papa Sow depuis premier engagement ba léegi man maa koy engagé. ñoo pour dàq Papa Sow je ne suis pas au courant. ah dama ko gis nii ci journaux yi ak ak euh, kii. Ah, bokkoo ci ci ci bureau bi. non non man manager général la waaw manager la foofu waaw. alors tey Papa Sow génnam écurie Fass bi yow bi nga ko déggee nu la def. waaw bon man bon Papa génn na écurie bi ma ko déggee ah jël jot naa gëstu lu tax ñu génn écurie Fass ñu ne dafa am convention bu ñu joxe bu ñu joxe pour mbëri signé ko léegi nag. il paraît moom mu ne léegi euh, du signé bosam quoi. waaw lu ñu ne loolu lañ ko dàqee. mais yow d'accord nga ci personnellement ou pas. non non xam nga man fi nekk nii ginnaaw ba ñuy décider yëguñu ma mhm. man aw ci lu may d'accord ak lu may euh, bañ a d'accord waaw. ñenn ñi nee nañu le fait que tey Papa Sow nekk écurie bu bees gis nañu yeneen écurie yëpp dañuy jël carrément manager yi 10 pour cent. écurie Fass ngay ñëw 10 pour cent yi ñu séddoo ko ak yow aussi euh, waaw bon écurie Fass dafa am convention bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu defoon parce que dañu ne léegi écurie Fass 10 pour cent bi du contrat dañuy jox manager bi trois pour cent bon set pour cent bi pour les entraîneurs bon. xaa euh, pourcentage du sponsor bi c'est pour les lutteurs ak ak l'écurie non waaw 3 pour cent waaw moom la daan moom la ñu doon moom moom la ñuy doxal ba léegi. mais bi nga ñëwee écurie écurie écurie Papa Sow bu bees bi euh, pour cent waaw léegi fi mu nekk nii euh, waxaguma li ma waxante ak ñoom aussi léegi papa daal. pour man xam naa ne du def la may gaañ daal xam naa ne waaw waaw parce que li ñu seq la du départ à la fin ba ba fi mu nekk nii. personnellement ragaloo comme ni nga demee tafu ci Papa Sow bàyyi woo Papa Sow gars yi indi la jafe-jafe dàq la maanaam. non non nii man amu ci lu may ragal parce que actuellement nii nit ki man bi may bi may intégré écurie Fass léegi euh, yàgg na parce que même combat kii Moustapha Gueye Amad Sène man maa ko maa ko maa ko waaw bon après yeneen ko am na yeneen combat avant avant avant combat boobu waaw parce que it proposé naa fi benn jour euh, ñi ki doon tëgg combat boobu. ma ne ko temps boobu euh, kii euh, Bruce li mi ngi mi ngi écurie Fass ne leen léegi tëgg leen Bruce Lee ak Birahim dë ñu ne non euh, boobu combat dafa tuuti ci ñoom quoi bon ne leen ok léegi mais combat bu bu am bu am kii laa leen laa jox waaw. ñu ngi dégg léegi Père Ba bu écurie Papa Sow jàmbaaru wrestling ne waa Fass ak ñoom dara sekkatuñ ko maanaam bu seen mbër waree bëri waa Fass dañuy bëri mais boobu ak yow en tant que manager général Fass manageru Papa Sow fay taxaw. ah waaw waaw loolu nag fi mu nekk nii fi mu ne mënaguma ko xam parce que euh, combat boobu amagul waaw. mais yaa ngi ci bàyyi xel. waaw maa même bu ma ci bàyyee xel it ah, boobu. amagu parce que euh, Fass am nañu manager encore bu Ibra Mbaye bon parce que ginnaaw man Ibra Mbaye la waaw parce que même am na combat yoo xam ne ni Ibra Mbaye moo ko engagé à kii parce que combat Papa Ndoye Ibra moo ko engagé Serigne Ndiaye 2 Ibra moo ko engagé Giri 2 Serigne euh, kii Ibra Mbaye moo ko engagé waaw kon xam na Euh, bu bu combat bi taxawee mën nañu. waxtaan waxtaan <laughs>